asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen bal xaq di ñaanal ak cheikh Mouhamadul Muntaqa sunu boroom yàggal ko fi te ko ba naa yi mu naalal lislaam yépp màggale ko di ko ñaanal mboolem njabootu ak Cheikhul Khadim gi ak mboolem kilifa diine yi ak jullit yi di ko ñaanal Serigne Bassirou Anta Niang xalifatu Cheikh Ibrahim ñaanal ko njabootu Cheikh Ibrahim gi yépp di nuyu Serigne Abdou Mbacké moom Serigne Fallou si Gueye di bu baax ci bis bii ñaan yàlla sunu borom mu guddal fanam wéral ko ba ak ay yéeneem ak ay bëgg-bëggam yépp sunu borom sottal ko nuyu kilifa yi nga xam ne ñoom lañ fi fekk rek ci jotaay bi Serigne Bassirou Sall di nuyu Serigne Khadim Kébé mi wàcce kàddoom léegi ak Serigne Amidou Diop noo ngi leen di ziyaare bu baax di leen jox seen wàccuwaay di am mbégte ci yéen ñaan yàlla suñu borom mu gën leen a kattanal te dëgëral leen sëriñ Jibril Ndaw noo ngi lay ziyaare bu baax di la jaajëfal sëriñ xabaan ñu ngi ngeen àndal ñëpp xam naa sëriñ Fàllu xam na sëriñ Aboo xam na ko sax moom ab taalibe moom moo mënta doon ab ak kilifa rek waaye ay kilifa lu nekk dinu xaar waaye moom daa yónnee jël suñu sax loolu nag li muy tegtale mooy moom sunu kilifa la waaye bu doon wootee rek mën na maa jéemale fii fi dong waaye daa yónnee ne te ki mu yónnee passion loolu nag ndax moom wax bu bu bu bi may wax sax dana nu nga tontu naa convaincre waaye danaa ma sa diggante sa éboo daal yoonu kenn nekku ci xam nga yooyu wax daa gàtt loolu rek la may wax waaye sëña boobu moom day koo xam ne euh, noonu mënuñu ko fay ci sunu jëmm ku ne xam na ne tey bis la boo xam ne bu xat la waaye moom mën naa am at mi yépp ñaari bis rek lañu ci yittewoo muy wàccaayu wàccaayu céen ak bis bii moom kilifa la li muy xat-xat démb ñëw na sama kër fekkee jataay ba ba mu jeex te loolu lépp ak waaye fa ma tax chauffeur bi waxaat na ma ko léegi bi ma doon jël si mu ne koo xamul na koy def nam lay defa tax te sa njaboot dafa baax yaatu te rafet jikko moo waral mu am lante ak bis bii nga xam ne nag dafa baaxoo bu waxtu wi jotee bokk yi wëllëre yi ñëpp daje fi jikkoom rek moo ko waral maa ngi nuyu sëñ Abdou Wahab gànnaar ak njaboot Cheikh Abdou Karim Touré gi nga xam ne ñoo fi nekk bis bii dañ ciy fàttaliku xew-xew bu yéeme te mooy giseb Serigne Touba ak maam Thierno Borom Daaru ginnaaw bi mu defee ci géej gi juróom-ñaari at ak lu topp te batale woon ko lépp ba mu jógee ci géej gi. ba dem ndar seen bis boobu ñu gisee woon moom lañu tànn tam doon ndigalul Cheikh Amadou faabal ibnu Xaadimu Rasuul ne bis boobu bisu mbégte la te bis bi bari na lu mu dajee ndax ku xam ne su soxbaan loolu nag li ñu ciy jànge mooy ka demoon ka mu dénkoon ka demoon ka mu wóolu ka demoon ka mu doyloo woon ka mu yaroon tàggat ko def ci moom ay jikkoom ba doxiinam di doxiinu maam Cerno ay jëfam di jëfi maam Cerno ay jikkoom di jikkoy maam Cerno nga xam ne doxiinu Serigne Touba rek la borom daaru roy li Serigne Touba waxoon ci yonent bi alayhi salaatu ne laysat li al yowma xaajaatun uammiluha si waxti faayika xafal qalbi wal badan awma jënn yitte joo xam ne maa ngi koy settantal lu dul ne rek dama lay roy di xañcu sa mbir ci sama xol waaye ci sama jëmm waxit ne awma jënn yitte ju dul roy ko doon am yitte baa ma am lu may bëgg mooy roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu mu defal ci yonent bi noonu la sëriñ borom daarul Muxti def ci xaadimu rasul am na ci borom xam yi réew mi ku koy tagg wax ko ko ba muy kañ borom daaru dana ko baayaata xayral xadiimi waqta dayta bi fil xawli wal fi'li xatta xusta bushra yow maam Thierno da ngaa jaayanteeg Serigne Touba waaye ba nga jaayanteeg moom nag da nga roy roy ko ci na muy waxe roy ko ci na muy jëfe ba nga làmboo mboolee mbégteem yépp kon boroom daaru Sëñ Touba la roy ci wax Sëñ Touba la roy ci jëf loolu it mooy la yonent bi defoon ndax ba ko sëñ Bay Jaxate wax ci Serigne Touba ak digganteem ak yonent bi dane ko wax yi nag ci borom daaru it wax waxiinam mooy wax waxiinu Serigne Touba waaye jëfiinam it mooy jëfiini Serigne Touba borom dooru nag doon borom dee def ci moom jikko yu mat doyloo ko mu jëf-jëf joo xam ne it wane na ko ci biir aw meloom ak i tedd ngaam te moo di am kóolute amuk dëggu amuk jub mboolem makaarimul axlaax yëpp dafa làmboo ci borom Daaru Muxti lañ koy taggee sayyidatuna mas nañ koo laaj lan mooy jikko yonent bi mu ne jikkoom mooy alquran Sëriñ Tuubaa lan mooy jikkoom jikkoom mooy alquran borom daaru it jikkoom mooy alquran mooy lan mooy li alquran di digle lay jëfe la muy tere du fa jaar moo tax ka ko doon taggit loolu la wax axlaaqul quraan wa chiimatul huda wal xaq day bi bila kitmaani nee na jikkoy borom daaru mooy alquraanul karim màndargaam li mu symbolise mooy lan ak jub waaye it dëgg ci lu amul genn nëbbu mooy melaw maam Cerno mu ne mooy koo xam ne jëpp jikko ju baax jooy tagge nit di ko ko kañee nee na jikko jooju mooy jikko ji maam Cerno làmboo ba mujj mu ne sax wa bi kulli awsaafil xadimi daani man ngeen ne jëpp jikko wépp melo wu sëñ Tuubaa melo woon noonu la maam Cerno meloon kon bis bi tey bis la bisub santante la woon ci diggante Sëriñ Tuubaa ak maam Cerno te ko fee bàyyi juróom-ñaari at yu teg ay weer bàyyee ko njaboot gi bàyyee ko yoon wi boroom daaru fexe ba jàngal njaboot gi fexe ba yar murid yi fexe ba dëkki Serigne Touba yi mu sanc jërëjëf incha allah dëkki Serigne Touba yi mu sancoon bàyyi ko fi ak mag ni mu defaroon te nu tasaaroo ci goxi réew mi yépp kenn ku ci nekk am taxawaay bu dëgër ndax batale boo ko sëriñ batale woon mu doon imaam bi nga xam ne moo nekkoon ca jàkka ja di jiite waaye nekkoon mufti bi nga xam ne moo daan àtte di leeral xam-xam yi di ubbi way ñàkk xam ya taxawaayu bu rëy boobu nag diiru juróom-ñaari at yooyu yëpp kóolu si nga ko sëriñ bi dénkoon doyloo ko moo tax mu taxawee ko moo tax ku ñu wax abdullah ibnu abdurahmaan al alawi ba muy tagg borom daaru andi na ko ci melokaan woowu wax ne ba sëñ Tuubaa dogoo jëm ci tukkeem bu rëy boobu ngir liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi mel ni sàmm wala rëbb bu tàbbi ci ab àll te rëbb te gañ te jot nag rab ba gën a rëy kam fi bàyyi woon mu toog di settantal mbir yi mooy maam Cerno Birahim aboga yu dabiru rida fahima ka fi di ko settantal mooy maam Cerno mu ne mu jël mbir yépp nag teg ko ca yoon moom war a tege ci bu taree waaye bu fekkee ne ak yombal am na waaye mu ne ci mépp mbir mu maam Cerno bëgg nag wa fi kulli ma kaana yuriduhu ta anna wa bit ta anni naa la ma tamanna mu ne lépp lu doon bëgg da ko daan bëgg ci ak dal bëgg ko ci ak teey mu ne loolaa ko jural lam doon sàkku lépp di ko bëgg mu am ko ca biir xasida ga la ne nag rabbal muridiina wa aqral baniina yar na murid waaye jàngal na nag doomi Sëriñ Tuubaa yi la cay firnde mooy kaamilu Cheikh Mahamadul Moustapha fekk na Sëriñ Tuubaa ci géej ba Sëriñ Tuubaa ne Ibrahima qad wafa cer na matale na la mu daale woon ca te kaamilu sëriñ Fallu noonu la noppee woon mu batale ko waxoon waxam ju rëy joojee ca keroog ba muy bind lettre maam Mor Jaara lettre bi jëmoon ci moom di wax ne na ngeen borom saam na ngay na nga yërëm njaboot gi nañuy diisoog yow waaye nañ la wormaal daal dina njaboot gi nag fal yakunu al-ayaal maa Ibrahima fii Tuuba in amkana wa illa fi ay makaan insha allah njaboot gi nag mën nañoo nekk ak maam Thierno Touba bu Touba jàppalee bu Touba jàppalewul nag béréb bu soob yàlla kon loolu responsabilité yu rëy la gàll borom daaru mu toll ci fanweeri at ci zahir sëriñ bi bi muy dem ci géej gi ñeent fukki at lam te magee na borom daaru fukki at wala fukki at ak lu topp kon borom daaru fanweeri at wala fanweeri at yu manqué la bàyyi ko ci biir noon yi bàyyee ko njaboot gi ak bokk yi li jëkk a xew mooy keroog bi sëriñ Tuubaa génnee Mbàkke Bari dem ci géej gi ndax xam ngeen ne keroog bi tubaab yi àtte Serigne Touba 5 septembre 1895 conseil privé bi daje ci ndar bokk na ci liñ digle woon mooy kër gu Ahmadou Bamba am dëkk bu mu am nañ ko taal. loolu bi mu amee dëkk bi ñu dëkk taal mooy Mbacke Baye keroog bi borom daaru safi bagage yi lii ci ay mbaam lii ci ay loo saf yépp ba mu génnee boo demee Mbacke Baye. këru mbakki bari gi bu ko borom daru génnee man nga ne bay tolloog fa tëli ba ne la tubaab yi taal këru mbakki bari gi duru borom daru gestu xel mi rot ci ñetti baat yi ko sëñ Tuubaa waxoon kere ba muy tàggook moom gaaw fukki fan ak juróom-ñett ci weeru diggu gàmm muy safar du fukki fan ci weeru ut fajari gaawam boobu nga xam ne borom dëru daa wàcc ci naaru góor yi rek na cëpp ndigalul yàlla li wàcc ba mu koy dénk da koo dénk ñetti baat rikk na nga muñ rikk na nga gore rikk na nga am jom ba mu ne wërañ wane ginnaaw di dem borom dëru na ko jàkk ay gëtam njaboot gépp wër ko tàmbalee ko si Amadul Moustapha soxna fat jamadi taaw ñëpp wër Cheikh Ibrahima Fati mag ñi nekkoon Mbàkke bari te doon mbooloo ñëpp jël ñu siwaat ci maam Thierno moo tax Cheikh Ibrahima ba Ibrahima Diop almachal di wax ne fii Mbàkke bari la naa baadaat xilaafatuhu ca Mbàkke bari la ñu wóore wóotu gi maam Thierno wóotu Serigne Touba ngir doon la rek ba demee ci dalil yu xaayil bu Cheikh Mahmoud Lamine Baara nga xam ne tukki géej gi rek sëñ baara li te sëñ baara nee na damaa dugg xalwa laaj ko sama borom ba mu wax ma ko ma door ko bind nee na keroog bi sëñ bi takkee boo wane gi na bay bay dem am na ci njaboot gi ci soxna yi ku ñëw ne sëñ baara ndax da ngay ànd ak sa baay nee mu ne ko fu mu jëm nee na bi mu ne fu mu jëm soxna si daal du mooy yoon ko ginnaaw jërëjëf Mbacke Balla ba mu ne ko fu mu jëm dafa dumo yoon ko ginnaaw borom dooru na jàkk sëriñ bi mu bàyyee ko lépp mu boole xol bu duy aw tiis aku naqar ndax lim amul ku dul moom ak fa mu jëm ak ñooña ñanu doon yooyu rek doyoon na ay mbir waaye jom ji ko dénk ngor gi ak fit bi doy na ab nawet la tool yi borom dooru bëddantiwu ko ndax sàmm yi dañ ko sàmm guddi tool yépp jeex mu génn Mbàkke bari ñu taal kër gi mu jëm Touba Leclerc joxe woon ord bu kenn dëkk tuuba fu jëm ñu ne ko jàpp nañ sëñ bi te bu noppee ci moom ci yow la ñuy jëm si kon ku la dalal ku ne buñ la jàppee des na ko jàppale mu wuti guy nguraa ma dégg mbay dee tubaab bi taal na ñetti yoon kër borom deew taal Cheikh Mandoumbe xabbaan lay ñëw defaraat egg na ci amul fu mu dëkk ak njabootu Serigne Touba gi am na guddi goog am sàq la defar ba mu jekk mu dugal ci njabootu Xaadimu Rasuul loolu Serigne Khalil nekk liwaat na ma ko ne Serigne Saliou la ñëw mu ne ko nañ la wutalum léegi ba yàgg mu ne sa maam mas naa fanaan ci sàq gi kon loolu ak tumuraanke mënu ko wees waaye ngor gi ni muy matee rikk na nga muñ rikk na nga gore ba mu nekkee guy guy nduraa di mbay dee borom dëru ne fab diir tawat wàcc ku bokk ak moom lépp génn àdduna borom dëru jaaxlewu tiitut koo xam ne moom moom ñoo bokk yaari wayjur génn àdduna ca tawat ja borom dëru waxut waaye keroog bi tawat ji duggee ci njabootu Serigne Touba Cheikh Moustapha tawat Serigne Fadilou tawat Cheikh Mamadou Leen Baara tawat bu su borom dooru ku dëgër la ku jàmbaare la waaye keroog la lal ab deram julli ñaari rakan tuur ay xiiwal ñaan boromam na ko bu ma naree sama kilifa gi ñëw ma di ko laaxan kenn ci njabootam gi naa ñàkk bakkanu sëñ mu daaw balla mii di maami sëñ Abdou bakkanu sëñ mu daaw balla la sëñ Tuubaa la borom dooru jëkk ak garanti ngir bakkanu doomi sëriñ Tuubaa dund daldi na bu kenn naree dem naa ñàkk bakkanu sama ndey soxna Faty Issa ngir doomi Sëñ Tuubaa dund baa loolu lépp bu naree am man cerno naa ko wuute kon na sama ndey dem ma dem doomi Sëñ Tuubaa xoola googu ngor ak googu dëgër ak googu jom ak googu matale loola nag la la leeral moo demee ci xasida gi Sëriñ Baara tagge Sëñ Tuubaa yaa am yaa Cheikh yow sunu bàyyi tax yow sunu sëriñ day kañ borom daaru ba yàgg mu ne ko tallaahi lawlaahu laa nu fadawi adabin walam nakun nahfaz alquran fi sigar bu dul woon ak yow ah bàyyi cerno sëñ Baara ko wax na ko bu dul woon yow bàyyi cerno nun doomi sëñ Tuubaa yi doon mokkal alquran te doon lamboo ay teggin ci waxtu ndaw tallaahi lawlaahu laa nu fadawi adabin walam nakun nahfaz alquran fi sigar bu ñu wattoo alquran daanu lambooy teggin yow ah na ko kañ la na ci jamono ji kenn yooyu ko mooy yow yaa yooyu tagg wi yow Seex Abdu Rahim borom dëru tubaab bi daana toog ba yàgg mu xëy jiital ko teg ko ay fetal ngir di ko xub waaye du raf am na bis dañ ko wax soxna fet ise na ko sa doom ji tubaab bi jël di yóbbu mu ne ko ko yar ku mu yar doo ñàkk fit loolu li koy firndeel mooy tubaab bi xëy na ne si borom dëru tasaareel daara te jóge fii baa nu tas ko borom door na ko tuxu gi moom man naa am ndax sëñ bee ma koo xool amaa jëmmi tas daara ji nag balaa am da ngay jaar ci sama kaw ba noppi door a tas daara ji moo tax kenn mënu koo jot ci fit te tax borom dooru ëpp ñëpp fit sëñ Tuubaa ko seereel sëñ Modou Habib ñu rëdd aw rëdd na sëñ ko kenn jéggi sëñ Modou Habib jéggi ko ne ko ndax da ngaa dégg li ma ko dégg naa ko de mu ne cay cerno fit wi dafa dëgër ba wàcc ci doom yi moo tax sëñ Moussa Ka ne mësula rëdd mësula tiit du jaaxle masiyeefu koo kalaame bor moo baax jànkonteeg yépp jafe-jafe moom Cheikh Ibrahim di ko muñ dara yàquut te du tee njaboot gi di jàng alquran du tee la ko war ci taxawaay lépp maam Thierno di ko taxaw diirub juróom-ñaari at yi nekk ci géej gi bañ xëy bind leetar tubaab bi mooy keroog bañ gesee kàbb googu te Sëriñ Tuubaa yi wax ne randama rabbiya maa udi xafar li darari wa saanani an man kafar te tubaab yi dañoo gas kàmb ba mu xóot ñu mërmëral ko taal ci dara ne sëriñ tubaab béréb bi neex naa jullee mërmëral na ko fii neex naa jullee sëñ bi teg fa tànkam mëbax ñu maase la kàmb gi ndaw dem di reetaan ci la sëñ bi ne raddama rabbiya maa udi wi xafar li darari wa saanine an man kafara lan gasoon di ma ci jéem a pexeel yàlla muccal na ma sëñ tubaab nee na dama faat naroon a teggee dem ajjana waaye kon danaan pexey tubaab yi daa jàpp tubaab bi bind lettre jaarale ko Cheikh Sidiye jaarale ko ci boroom sàmm ñu traduire ko ñu wane ne maam Cerno lan moo ne ci lettre bi Ahmadou Bamba génn na àdduna ñuy mokke di mokke ñuy sibile di sibile wu ngir bëgg ci ne sëñ Tuubaa bakkanam des na fa borom dóor ñëw ci jàkka ji waxtu timis am ñu gisul ne Cerno nga fa jiitu am ñuy wax ba yàgg am ku ne jox ma duubal jox ma tàngal ma nekk la xabaar mu ne ko duubal rek lay jar mu ne ko lu mu doon mu ne ko yógoo ne Ahmadou Bamba des na ci géej mu ne ko nu cerno nooy dafa maalam jooju ba mu ko jàppee mu fatu di jàng alxuraan ca soxna Faati Isa moo yëg ne am na lu xew mu ñëw laaj borom dëru mu wax ko ne ko sa waaja lañ wax ne daa des ca géej ga mu ne ko amut keroog ba ma ko toggalee laa xam boobee wala la ma ko joxoon te fasanteeg moom la ma ko fas moo ma waxaloon boppam maa lay tàbbal ci bàmmeel maa la ciy dugal daan na ko man maa ngi nii faatooguma man faatooguma te lu mu wax dana ko def boo xool wàcc sax yàlla far moo tax Serigne Moustapha Saliou Wilum boo gisee ki gën a gëm Serigne Touba mooy soxna Fati Isa borom daaru boole muñ googee ak njàmbaar ga Cheikh Ibrahima Diop al-Mashari ne wa yuxjilul gaysa yowmal juudi mubtadila way yuxjilu laysa yawmal ba'si muntasira nee na bu jamonoy tabe amee ak joxe alal asamaan su ko di sotti cernoo ko raw waaye bu jamonoy weñ si ñëwee tàng ñëw maam cernoo raw gaynde guy bëngeen loolu li cay misaal mooy keroog bi tubaab bi di bënn gaali Sëriñ Tuubaa yi ci mbakki bari ci dellu ma naa te gëstu bu mujj bii gëstu naa ba am lu ma leer ne kaamil bi Sëriñ Tuubaa yoroon di jàng ki ñëwoon di jaxase gaal yi daal këf kaamil bi sànni di dajji sàkket bi am na ci kook sàkket bi borom dóoru toog ci ginnaaw ferentulaay di jàng alxuraan bi mu dóoree jees ji laaj bu jëkk bi daa dagg ba ca laaj ba ci suuf sàkket bi ne laaj pënd bi dal ci borom dóoru cerno si gën a ko ak cam foofu du da ko waroon def fii kooku moo waxoon ne bu Sëñ Tuubaa woon guerre wet gu cerno Ibra Faati jëm du ma fa jëm maam cerno doy rusloo gaynde guy bëngee borom dóoru moomu am melokaan mat woow it jomam ak jitteem ju réy may ko te mës dox ci ay neen fa lasta talqaahu illa daafian darara aw xaadiyan watara aw taaliyan suwara foo mës a seen maam Cerno bu laaj fu mu jëm fa lasta talqaahu doo dajee moom lu may illa daafian darara lu dul maam Cerno day jeñ ay lor aw xaadiyan watara wala muy faj aw yitte aw taaliyan suwara wala muy jàng alquran jàng alquran yor foo gis maam Cerno ca lool lu jëf wuutu taxaw ginnaaw Serigne Touba dara méjjul ba 1902 11 novembre Serigne Touba wàcc ci waaxu Moussa Sine ñu dem Ndar def décharge bi mu yónni Cheikh Issa Diène radiyallahu taala anhu ñu wooyele ko maam Cerno borom Darou Moukhty dégg naa ci Cheikh Abdou Karam Mbacké Noreyni mu ne Serigne Ousmane nee na keroog bi Serigne Touba gisante ak maam Cerno bis ba mu ne tàbbi ci fi sëriñ bi rek sëriñ bee ko daral boppam ci dënn bi nee na ma dégg ni dënn bi di liire moom xadim rasul sëriñ Tuubaa moo ne ko mata taqa aynayka ala hadihi lhuruf fatayaqan bi anna kaadibaha raadin anka ridan la suxta baadahu wa annahu qalibin min allahi tabaraka wa taala maa yaqdi jami amthalik fatib nafsan wa xar ayna sëriñ Tuubaa ne ko cerno boo gisee sama bataaxal bii xamal ne man mi ko bind gërëm naa la ba faw te duutuma la ngañ te yëmuma ci gërëm la kët dañ booxi Sëriñ Tuubaa moo tudde woon maam Cerno gis texe doy na ci màndarga fi adduna na tollu Sëriñ Tuubaa moo waxoon ne Ibrahima alladi lam yuxaalif ni laa fi sigarihi wala fi kibarihi Sëriñ Tuubaa nee na maam Cerno mooy toog mësta juuyoog man ci waxtu ndaw mësta juuyoog man ci waxtu mag bambaa ko yar yor koy waxtu sixeer te mësta tàggoo mu li wax dir kibar bambaa ko jàngal alxuraan ak xam-xam jàngal liggéey la boole ba am ndam mësta juyoog Sëriñ Tuuba benn chaar la amoon mooy lu Sëriñ Tuuba bëgg dana am lu ma sant danaa ko def sëñ bi mës na koy sengloo këru Tuuba gi am ku ne ko mbàkki ay seng yombul li la sëñ bi sant na koo xamul borom dara na xamoo Sëriñ Tuuba xamoo ma kooku lu mu bëgg dana am borom dooru mooy jàmbaar bi nga xam ne. da ko wax mu ne xalaalan tayiba lu bàyyi ko ci cerno lu dagan lu lew la juróom ñetti fukki at la dund yu manqué ñeenti weer ñaari yoon la maam cerno ma sa tiim ci àdduna ba mu amee ndox fay li gënoon a wis ci dooru maxti mooy jàkkee borom dooru borom dooru dund na juróom ñetti fukki at bari barke lu ne mu am ko te mës a dëkk ci tabax benn yoon la ko maami seen aboo mii mës a dëral ab néeg néegum ñax bu rëy ñu defar ko ba noppi ñu peroon ko borom daaru ñëw taxaw naa Moodu néeg bi rafet na lool waaye nag taras bee tax muy tabax bee tax daal àdduna ab tabax faju fi li gënoon a gis ci daaru mooy jàkka ji te da koo tappat da koy seng day seng jàkka ji da koy sengoon te boole barke bu ne gan borom daaru mënoon naa bay mënoon naa yar téeméeri mbant kilomètre carré la Cerno diine lay jëm bàyyi yàlla ba ndigalu sëriñ bi bu noppee alxuraan lay jàng ak ñaar fukki hisib yi muy kër daa santaane ca tool ya bu toogee boo ñëwee bëgg a toog du la wax jógal ko bali teggin la day jékki-jékki jóg mel ni ku jël gob bi bëgg a bay nga ne ëpp naa def mu fexe ba nga liggéey boo toogee da ngay li gerte baa ngay def nangam baa ngay def nangam waaye kenn du toog fi moom ci loxoy kese nit dafa ñëw na ko diis ko soxla borom dooru digal ko muy jeexaat mu ne ci tool di jeexaat lu mu for ñu denc lu for mu denc ba doon alal ju bari borom dooru jaay ko muy mu ñëw di tàggoo bëgg a dem borom daaru yëkkati loolu la jox mu ne ko mbàkke sant naa lii nga ma defal de bi mu fi ñëw xamoon naa ne moo fi indi woon sama aajo na faj mu ne ko yaa liggéey de boo defoon nii am dara bëggutum yambar moo tax daana wax ne ku ku dul liggéey du am dara koomu dara du toog ku toogu du jaamu yàlla ku jaamul yàlla du dem ajal Cheikh Ibrahima Diop almachar ne ixwaanu qadim Moussa kulluhum kabura lakinnahu bi ittifaqin akbarul kubara nee na sëñ Tuubaa ku ndaw ay ponkal laam waaye ponkal yee maase na cernooy ngat ma boo demee ke sëñ Aliou Diouf Lambaye tuddee na ko lu mat juróom-benn wala juróom-ñaari cerno sëñ Ahmadou Diop na ko lu mat juróom-benn juróom-ñaari cerno boo demee Cheikh Issa Diène sëñ Mbacke Diène moom la ko tuddee maanaam mag ñi kenn xamul nu muy toll moo tax Cheikh Issa Diène daan wax ne cerno kan la fi ginnaaw sëñ Tuubaa moo fi mag te sëñ Tuubaa mosu ko yónni ci kenn fi ne kenn lu la wax ne la keroog ba sëñ Tuubaa yónnee maam Cerno ci man xanaa ba mu yónnee ba ñu la yónnee sa am da rabbi xot maam Cerno yi ko mos sa mooy benn yoon ndigalul yàlla te gore na sëriñ Tuubaa ko joxoon mbubb moo xam ne dane ko boo ko solee feeg bi yaa koy sol di nungu du jeex mas naa waxit ne bu ma bëggoon adduna de bu ma bëggoon adduna danaa am lu dul jeex ndax Sëñ Tuubaa wax na ma lu dul jeex moo tax keroog bi bi ko tawatam di daanee sëñ mu daaw balla mu baax bi ñëw na ko xanaa sëñ Tuubaa waxu la woon da ngay dund lu la soob te sëñ Tuubaa ko la soob doo fi kenn du la seet mu ne ko mbakki xanaa sëñ bi waxu la woon da ngay dund lu ko bu ma sóobatut nag kooku mooy maam ci ko am kilifa gu mel noonu nag am nga royteef ci sharia am nga royteef ci aqiqa kon lii sëriñ aboo di def warteef la taxawaay la xamal nit ñi kat mooy maam Cerno loolu mooy taxawaayam loolu mooy jëfam way juróom bu baax ci loolu rek la nekkoon sëriñ Fallu Sijji yàlla yàlla dolli ay ngëneelam sëñ Modou Awa Balla day fu Daarul Muxti egg sëñ Modou nee na dugg naa ko waxtu wu ne génn naa ko waxtu wu ne ngir lay jagal daaru keroog bi mu tàmbalee jumaa yi Daarul am na ko waxoon Serigne Fallou na ko mu daaw ball tàmbali na jumaa ca Daaru waaye yurul xaalis mu ne yurul xaalis waaye juboon ak boromam te Serigne Touba na ko feeñu ca ngaay fekk ko fa na ko na jumaa ca Daaru Muxti nekkoon fii taxawee nu ne def dëkk bi nii mu mel tudd naa la léegi soxna Fati Isa Serigne woon maa lay nungu ci bàmmeel moo tax ñun waruñoo décourager gis nga noonu dañoo ñàkk fayda nag léegi-léegi dañ lay nettali dara sëñ Tuubaa wala sëñ Tuubaa wax mag nanga wala nga ndax wóor naag di ko commentaire rek sëñ Tuubaa moo leen soxna Faty Sy maa lay nangu ci bàmmeel ba mu demee sañ ci Mbacke Bari 1908 mu yónnee woolu soxna Faty Sy soxna Faty Sy jóge Daarul Manaan fekki ko ci ab diir mu génn àdduna kon xanaa lam deele woon am na waaye li ci gën a yéeme li sëñ bi waxoon moo ko def la daloon yaay Ali yu tam tuddoon Fatima te Seydina Ali yu moom maam Thierno ñoo nuroo mbir